moom mooy euh, fa ñuy defee transfert d'argent waaye tamit ci euh, agence yi nga xam ne dafa am agence Tigo ñoom en même temps dañuy defaat li nga xam ne moom mooy Tigo Cash foo leen fekk yeneen transfert yi mun ngeen fa fekk tamit li nga xam ne mooy Tigo Cash ndax Tigo Cash ci guichet yi ci boppam boo fa demee rek ne Tigo Cash bi laa bëgg a envoyé wala moom laay retiré agent ba fa nekk dina la wax nan lañ koy defee kon ni ñu defee yooyu la rek amul benn différence waaye ñoom seen bopp seen jëg daal mooy gën a yomb yeneen jëg yi xam ne ñoom la fi fekk ñoom Tigo Cash nag ñu ngi ci 4000 points yoonu màggal gi nee nañ dañu yokk ca yoonu Jurbel ba ak fa nga xam ne mooy Touba ay points yu bëri pour lépp loo xam ne nag dafay jàppandi ci yónnee ak jot xaalis nga mun koo jot au kon mbokk yi nag am nañu mbégte contentement di Sa Morabi di grand chef religieux ñu papa alaaji Basiru euh, Baara Mbàkke nga xam ko ziar kooku nag ay taalibam ku ci mel ne Gofal ziar na ko ak Abdou ñu ngi koy ziar Cerno Bokar Alpha Ba a fondé borom ñetti fan yi ziar yi ko bu di ñu tamit Serigne Aziz Fall bu maam Modou Moustapha Fall xayra ca di ko ziar Cerno Nourou Tall ca Sacré borom manto bi yana ko yàlla defal jàmm ak alaaji Abdourahmane Bari ca Bogol ziar nañ ko ziar bu wër alaaji Ousmane Ndiaye nag di di la grande couturière ñu ngi koy ziar xam Hamdou Aw nekk xalif bu Thialaw nuyu nañ ko ziar ko ziar bu wër tamit di nuyu ku baax xam ne moom mooy Serigne Abo Mbacke ibnu Serigne Fallou Mbacke moom nag ña ngay waajal màggal ga ca xam naa nag dana neex trop ndax kër Serigne Fallou ku fa dal ca màggal ga nga lekk da nga naan waaye tamit boo matul euh, boo fa joxee addiya sëñ bi ca boppam booy dem dana la ndax sëñ Abo moom ci boppam sëñ bu baax la di ko ñaanal nag fan bu gudd ak wér gu ko wax incha allah ren danañu juuxu ca kër ga nekk fa bu baax nag suñu papa Serigne si bu alaaji euh, maam maam Abdou Aziz si taala anhu di ko ziar moom Serigne Mbaye Sy Mansour bu baax a baax ak ki nga xam ne taalibeem la ñu naan ko Mass Camaraman nee na mu ngi koy ziar ziar bu wër Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane moom nag wax dëgg yàlla suñu papa la di ko ñaanal fan bu gudd ak suñu papa Alaaji Seydou Sow nekk foofu nag ca zone A dëkk ca Passy di nuyu tamit suñu maam di maama sugu waadaan dëkk ca waadaan ñii ñëpp nag suñu ay papa la yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ñuy ñaanal fu ñu nekk di ñaanal tamit Télé Futurs Médias waaye di gërëm tamit Abdou Karim Mangane di président Soleil International ak ñaari soxnam Mangane euh, Sadio ak Mangane Fatima yal na yàlla defal jàmm ak cardinal Théodore Adrien Sarr bi nga xam xam ne nag moo jiite jàngu bi yàlla na ko yàlla may fan bu gudd waaye nag son excellence monseigneur Louis Marino Montenegro nos as politique au Sénégal euh, di ko ziar ziar bu wér di nuyu tamit maître Fatima Fall responsable politique foofu nag ca PDS bu Saint-Louis yàlla na ko yàlla defal jàmm yaa Ina Diallo ca Banjul ki nga xam ne nag mooy Mati mi nga xam ne moom la ñu yónni woon xaalis may wax ay mbokkam ak ay dëkkandoom dañ wax ne que Mati xaalis bi ma yónnee woon mu lekk ko boobu ba léegi mu ngi euh, mu ngi taxaw ne duma ko delloo may wax nag di ñaan yàlla na Mati paan ci yoonu Touba bi paan boo xam na ca àll ba njaa ba nga xam ne gaynde dañ ko fa fekk néew ma ñu lekk ko waaye gaynde wër oto ba ne bu Mati wàccul bu delloo xaalis bi ñoom du wàcc may ñaan sama mbokk yi nga xam ne nag mën nañoo am fexe ba ay gaynde génn ci yoonu Touba bi nañ ma kotal Mati ndax otom dafa xonk cuur bañ jaawle ko nawal bu boobaa Mati du génn ci oto ba yoonu Touba ba màggal gi jeex te du gis ko ko dépanné loolu laay ñaan yàlla dama yàlla dimbali waaye yàlla dimbali ma mati pan ci yoon bi mati sama ñaar fukki junni la lekk yàlla yàlla dimbali ma ngir yàlla mati paan ci yoonu Touba bi mati yàlla na paan ba màggal gi jeex du ku a yàkkale sa oto bu dugg oto yàlla ma mati yàlla na paan ci yoonu Touba bi way mati sëñ abo sëñ abo dimbali ma ñaanal ma ci loolu mati paan bu mu egsi yàlla na paan ba màggal gi jeex waaye amin yaa rabal alamin léegi nag mbokk yi ki ñu seeti nag <laughs> mais non lii moom Abdoulaye Wade moo ko sañoon def Abdoulaye Wade moom rek laa doon gis mu def lii léegi nag Macky Sall nag dafa mel ne Abdoulaye Wade commencé koo wàll parce que lii moom jaaxal na ma trop trop trop trop waa ji Baara Baara Ndiaye Baara Ndiaye daal dañ koo nommé tey lan laa demee bi ko nettali kaa la ngeen xool nan la demee dem seeti Baara Baara ayca ñu seeti Baara allo kooku la eh monsieur le ministre Mbagnick waa c'est Bara Bara Ndiaye wéy nga ne de la presse kan nga nommé directeur man non mais mais mais mais Mbagnick mais Mbagnick mais Mbagnick mais Mbagnick man lan laa defal Macky Sall ba mu may defal lii mais mais man yàlla bu ma ca topp man le plus jeune maire nekk maire u Mewane ba pare mais xaaral sama si madame gi madame chérie non ah, ah, oh oh, oh jabar na la jig bu oh. la jabar jigee oh. jabar na la bu la jabar jigee jigal na jabar na la eh woo sa géwél bi woo sa géwél bi dang cee yem dang cee yem xibaar bu neex Mbagnick Ndiaye moom ma woo léegi nee na ma mën ñun nommer directeur bu maison de la presse maanaam képp kuy journaliste rajo télé man maay sa directeur. Oh, waaw léegi waaw léegi def leen nag xamu xamu nuy def. Euh, parce que maison de la presse mooy kër gi Ablaye Wade tabaxal journaliste yi te nekk ci corniche bi est-ce que xam nga ne ñaata journaliste laa nar a jiite wal fajiri Sidi Lamine maa doon patron eh, Mamadou Ibra Kane maa nar a doon patron El Hadj Ndiaye a doon patron waa Excaf man maa nar a seen patron waa Sen TV Bougane Gueye Dany ñoom ñëpp maa nar doon seen patron rajo télé moom amatu leen si soxla loo leen bëgg ci rajo télé ak journaliste parce que ne tey dama lay def xolal eh, eh eh, eh. jox ngay jox gars yi ñuy lekk may génn budget ngay signé xam nga ñuy def on va aller dans les liir dañuy dem seeti eh, lieu bi te nag la eh, jàppale ma ci xar xaw foofu. damaa koy def ba mu neex ñu bëre daal sa kaw. am xanaa yéen da ngeen sóoraale woon affaire bi war a. ayca <laughs> ka kaa leen dem kaa leen kaa leen ñëw leen voilà bureau baa ngi ba mu tooy wis leen cat dafa gaaw le plus jeune maire wis leen. wis waaw waaw mi mi mi samay maam ñan la. samay maam ñan la ba mu war a mérité lii waaw yow mi meññee ci Alboury Ndiaye borom moom mi ba nu teen waa man mais mais man lu tax yàlla bëggee ma nii ba euh, Macky Sall ma nekk jeune ba pare waa Mewane nommé ma ma ma nekk seen maire toogul tuuti ñu def ma directeur. mais mais ko liggéey sa kër mais man ci ban xeet laa bokk ci ñan laa bokk doo ma tagg ma xam parce que pourquoi mu mérite lii. moo daan nuyoo buur àndaale wurus ci kay eh, eh, eh, xam nga sama taaw bébé mhm. maa ngi ko tuddee Ablaye Diouf saar bi nekk ci meeru Yoff euh, moom li tax ma gën a yàgg APR sax mhm. moom daf may waxtaan ak man te dama bëgg sax ne euh, euh, chéri xam nga yàlla mooy dogal benn doom nañu amagum moom laa ko tuddee mhm. mais nag ah, <coughs> bëgg naa benn makki je veux un dama bëgg Macky utal ma Macky ah <laughs> voilà voilà mais mais eh, eh, eh, eh xam nga def mhm. woo leen ma géwalu Ndakaaru Njaay ñu tagg samay maam parce que dañ may samp tey ma nekk directeur maison de la presse bu dara sedd te xam nga xam nga lingeer bi lay woo jërëjëf jërëjëf euh, il faut ma changer ni may waxee parce que boo nekkee maire mën nga xam nga directeur koo xam ne yaay doon patron Sidi Lamine yaay doon patron Mamadou Ibra yaay doon patron El Hadj Ndiaye patron Excaf mhm. ñoom ñëpp nga jiite leen mais chéri euh, euh, patron RFM TFM tous les journalistes yi taxawaalu eh ñoom ñëpp ku ma ci woo téléphone na la eh arrête nga arrêté parce que je suis le directeur de la maison de la presse mais bien sûr monsieur nan laa tudd nan laa tudd ah Ndiaye jaata Ndiaye. Baara Baara Ndiaye sant Ndiaye am na way am na benn fecc bu ñu naan dama bëgg. may Baara Ndiaye may Baara Ndiaye may Baara Ndiaye. may baara njaay may baara njaay eh may baara njaay njaay baara njaay directeur directeur directeur directeur eh téléphone téléphone baa ngi sonné chéri toog waaw mba Mbagnick non non non non non ma jàpp rajo lu xew ma jàpp rajo RFM d'accord maa ngi jàpp rajo taal ay eh, at taal rajo bi xaaral rajo rajo xam naa Macky Sall mooy da koy inauguré jàpp leen jàpp leen jàpp leen déglu leen déglu leen. asalaamaaleykum mbokk yi si monsieur Ndiaye mi nekk rajo RFM dafa am benn xibaar bi nga xamante ni moo fi am tey mooy que Baara Ndiaye mi nga xamante ni faloon nañ ko mu nekkoon directeur de la presse wàcce nañu ko. ci euh, nu mu gën a gaawee. waaw. may li ma doon defal na defal na yaa wooy may na ma man jëwal ba defal na analyse ba kii rab la ca ko dugg li man tane ak wàcc day yomb anam wow wow ay cat la wala lu mu doon.